daje bi tay liko waral moy daje pour weccante xalat weccante xalat ci lan président Macky Sall tibir def ci biir Sénégal yatuna. na tek ci ay programme yatuna. zone yi muy def ay intervention yatuna. programme yi mu tek bokk na ci programme bu ñuy promo ville mu ko ville yi communes yi pour ni ginnaaw PUDC mi ngi suqali li jëm ci dëkku kaw yi les aussi war nañu def ci loxo ngir suqali ko ndax président li mu gëm mooy li muy wax un Sénégal de tous un Sénégal pour tous mooy Sénégal kenn ku nekk gis sa bopp Sénégal kenn ku nekk yëg sa bopp loolu moo tax suñu sœur madame As Joxane Sow yore Promoville bëggoon ñëw tey échanger ak yéen jeunesse bi ngir wax leen li nga xam président def na ci Promoville en général mais particulièrement biir Thiès gi ñu dëkk ndax bu dem ci nit ñi war nañoo armé wu pour di leen mën wax li président jëf ak li mu kon benn ci présentation yi ma defal mooy ni jeune la la cadre la ba pare dëkk Thiès gii nag loolu di benn dolleeku ci cër yi nga xam président yaakaar naa ni am na ci dëkk yoo xam ni jarul sax président di fa campagne ndax liggéey bu rafet bi mu fa def dama bëgg ñu tàccuwaat bu baax notre sœur madame Sow mais ñu bokk jataay bi ak ñoo xam ne aussi Thiès lañu dëkk di ay cadre di ay boroom xam-xam nekk ci réew mi yore foon fi ay cër ba léegi yore fi cër yu am solo suñu frère Mor Ndiaye Mbaye nga xam ni biir euh, senegal li fi président def ci énergie suqali gim ci def yokkute gim ci def moor loxoom a ngi ci bu baax a baax ndax bokk na ci ñi président dénkoon loolu ñu ko koy jëfal jëfalinu rafet ñu am beneen cadre xalaatam ak ñawu xalaatam ci wàllu digital dañoo dem ba mujj gi ñun monsieur digital lañ koy wooyee muy notre frère le bàyyi Fall Lamine ay Fall moom itamit dina am waxtaan bu muy seet ak yéen mais dañu ñëw ci jataayu ñun boor bële la njëkk zone ñëw fekk si ñeneen aussi ñoo xam ni ñoo bokk parti bokk candidat muy suñu frère Ousseynou ak ñi mu àndal ñépp ñëw fekk si ko fii di fi defee si fii waxtaan bi

Beaucoup de fait nous doog maintenant échange quelques questions boudé amna di wax ni wa zone nord taxaw di remercier bu baax aussi suñu yaay Awa nga en particulier nga ma sœur je te donne la parole. Euh, leen euh, président de la république euh, gagné les élections au premier tour. Euh, peut-être man li may euh, présenter tey mooy euh, programme bi nga xamante ne nii président de la République daf ko teg pour suqali gox goxaat yi surtout centre urbain yi soo xoolee politique gu président de la République Macky Sall dafa bëgg sénégalais bi fu mu nekk mu yëg boppam ci li nguur gi di def moo tax mu def programme yu bëri mu mel ni PUDC mu jagleel ko milieu rural bi mooy ñu nekk ci dëkku kaw yi def lu mel ni Promoville mu jagleel ko jëkku dëkku taax yi mu am yu bëri yoo xam ne ñu ngi fay intervenir mu def lu mel ni PUMA PUMA di programme boo xam ne nii dañ ko def pour nga xam ne ñi nga xam ne moo nekk ci frontières yi mooy ñi frontières yi nekk ak Guinée frontières yi nekk ak Mali dëkk yi nekk foofu ñoom ñoom moom PUMA donc entre autres programme yoo xamante ne nii daf ko def pour que sénégalais yéeg seen bopp ci li muy def su ma ñëwee ci Promoville euh, programme la boo xamante ne ni euh, président dafa ko teg jagleel ko chef lieu de département yi waaye commune yépp ñoo ci war a bénéficier wu

gox yo xamante dinañ am euh, soxla bobu motax tax Thiès am na bu am solo ci biir Promoville mu jël tamit benen patch muy éclairage public ndax dëkku tax yu bari amuñu sécurité ndax nit ñi duñu mëna a génn guddi gi ndax amuñu ay làmp tax mu def également euh, éclairage public ci biir programme boobu donc programme boobu euh, chef lieu de département yi principalement lañ ko jagleel muy ñi nga xam te ni région boo gis par exemple bu ñu région de Kaolack euh, commune u Kaolack par exemple dañ koy dafay intervenir ñu intervenir actuellement ci 32 communes du Sénégal yo xam ni ne mi fay intervenir ak si euh, communes yooyu mën naa ci lim euh, ñi ngi Dakar parce que Dakar moom biir Dakar defar nañ ko ba mu baax waaye boo demee ci banlieue bi muy mel ni ay Yëmbal ak ay Kër Massar ay zone la yoo xam ne nii amul ay intervention donc zone yooyu fu xam ne la fu Promovilles di intervenir mais également au delà de Dakar dañ ne Sénégal du Dakar yeneen région yëpp ci Sénégal lañ bokk moo tax yeneen communes yi nga xamante ne yu mel ni Thiès yu mel ni Mbour mel ni Kaolack mel ni Diourbel euh, Louga Saint-Louis Matam di euh, Ziguinchor Kolda Tambacounda ay communes la yoo xamante ne programme Promovilles mi ngi fay intervenir su ma jëlee dëkk bu mel ni Sédhiou dañ ko def nouvelle région amul lu dul 500 mètres de route ci biir actuellement Promovilles def na ci biir lu 8 kilomètres de voirie

ci 9 milliards yooyu euh, am na environ 13 kilomètres ay tali yoo xamante ne ni prévoir nañ ko defar ci biir Thiès yu nekk en cours ak yoo xam ne war nañ ko defar alors tali yooyu ñi boo seetloo mi ngi ay côté Cité Lamy bu leen dox di ngeen ko gis Medina Fall Grand Standing Amitié Sofraco rendu leen Kër Sëñ Ablaye Yaqin Kër Sëñ Ablaye Yaqin ku xam terrain Cosmos xam ne bu tawee nawet kenn mënu faa jaar donc Kër Ablaye Yaqin am na lu ñu fa prévoir que travaux yi commencé nañ pour que bu tawatee ñi dëkk foofu duñu amati problème mu ndox mais également ñu def ci biir programme boobu parce que euh, président de la République dane ndaw ñi bëgg nañ liggéey waaye pour nga mën a liggéey il faut nga am métier ndax ku amul métier doo mën a liggéey moo tax ci biir programme bi ñu def ci lu ñuy wax formation des jeunes au métier du BTP maanaam nu ñuy tabaxee ay tali euh, nu ñuy tegee ay pavé mooy tali karo yi ñuy defar nu ñuy defee éclairage yamul tamit ci former leen rek ñu dem dañ leen a former ñuy liggéey ci biir programme bi mais également ñu former leen ci li ñuy wax

am na tali bu jugee Kër Daago euh, rond point hôpital régional jëm Kër Daago donc boobu ñu ngi commencé teg pavage bi daanaka pavage bi yegg na euh, pour que ñun ñu mën mën ko ubbi à la circulation soo demee grand standing euh, plutôt amitié Sofraco grand standing zone boobu ak amitié Sofraco dafa nekk zone boo xamante ne daanaka mësta am tali actuellement ci biir Promoville commencé nañ fa ay travaux yoo xamante ne ni dina tax nit ñi di mën a génn seen kër yi parce que man damay fàttaliku. Euh, dafa am ku ma xam ko dëkk foofu dafa ma doon wax à chaque fois bu waree génn moom day xalaat nan lay def ba génn dem liggéey ji ndax dina mën a dox lu mat 1 kilomètre balaa muy jot tali boo xam ne dina fa mën a jël euh, oto bi ko yóbbu. soo xoolee euh, président de la République bu mu ñëwee dafa am benn programme bu ñuy wax modernisation des transport urbains mu am 91 minibus parce que seetlu ngeen tata yi daw biir cees bu njëkk ba tata amul woon cees mu am 91 minibus yoo xamante ne ni dugal na ko biir Thiès ñuy daw. facilité nit ñi transport bi parce que Jakarta yaa ngi fi mën nañ ko utiliser waaye daw ci bis moo gën a wóor donc loolu loo xam ni tamit président de la République def na ko pour Thiès pour que ñi dëkk biir Thiès bi di mën déplacer wu facilement. soo xoolee également am na tali bu jaar buntu kë école Modakan euh, mooy biir si télé mi lay jaar donc tali boobu aussi defar nañ ko ba ubbi à la circulation am na fu ñuy wax avenue du Bawal avenue du Baol moy génnee ci euh, Sonatel bi so xolé euh, Sonatel bi mo fay génnee jaar biir Randoulène donc ñi tam jaar fofu certu nañ ne tali boobu ubbi nañ ko bi nit ñaa fay jaar man bu ma fa jaaree man personnellement limay may jariñ ci limay gagné ci temps man personnellement amal na ma njariñ bu baax donc su mu amé leen njariñ ça veut dire que nit ñi bëri man nit daf may interpeller parfois ne ma man tali boobu bu ma découvre dama koy doog découvrir waaye su ma fa jaaree yom bi day gaaw lool ci man am na tamit euh, tali bu wax A62 moom mooy jaar euh, mi ngi biir amitié Sofraco di jëm église bi ñuy wax euh, defe Jésus bon pasteur lu tudd voilà mooy jaar ci buntu église bi moom également tali bu ñuy wax buy jaar R100 mi ngi jaar HS10 lañ koy wax mu nekk biir R100 donc tali yooyu ñoom ñoo nekk yi nga xam ne engagé nañ ko ci biir travaux yi waaye nag Euh, bu dee dañoo sumbanoo lu bari doo mën a defandoo lépp ay pàcc la loolu lañ démarré waaye am na loo xam ne prévoir nañ ko également ci biir Thiès te commencé guñu ko tal yooyu ñuy defar donc day ànd ak assainissement mais day ànd ak ay làmp donc foofu ñuy defar yëpp day ànd ak ay làmp am na foo xam te ni démarré fa guñ fa ay travaux loo xam ne prévoir nañ ko ba pare euh, mi ngi som euh, som benn axe la boo xam ne war nañ ko defar de mooy SM 14 Euh, dama dul xam nu ma koy repéré pour euh, ñu ko xamul euh, actuellement ONAS am na fa programme bu ñuy wax programme des 10 villes ñu commencé def assainissement bi donc mi ngi foofu di jaar Somme am na également DK36 DK36 mooy soo ñëwee am na poste santé bu jaxaaw je sais pas ñi xam côté boobu poste santé jaxaaw am na benn koñ buy jugee ci hôpital Saint-Jean-de-Dieu jëm poste santé bu jaxaaw tali boobu également dañ ko prévoir defar amna tali bo diar buntu lycée fawu yu jëm kër sëñ Massamba Gueye également euh, ci programme bi la bok également tali bi ñuy defar mu jógee hôpital régional dañu bëgg mu raccordé wu ci yoonu parcelle bi donc amna prolongement bu ñu war a defar également bo jëmé parcelle euh, côté côté unité 2 am na benn tali bu fa nek ben boulevard bu mag bo xamante ni euh ken aménagé gu ko boo xam ne ko wara défar mais également amna tali bo xam peut-être dama ko cité wul muy jaar medina Fall

dañuy wax nit ñi fàttali rek sax lay doon fan lañ jóge woon doog leen a wax fan lañ nekk léegi fi ñu jóge woon diggante 2000 ak 2012 je pense que 2011 2012 ñëpp fàttaliku nañu les émeutes de l'électricité li fi amoon mooy kenn ku nekk sénégalais bi gën a tuuti mën na laa wax ca jamono jooja kañ la bateau bi indi fuel bi tax ñu mën a togg courant bi fan la bato bi toll saa yoo taalee rajo ñu naan bato baa ngay ñëw ñëwagul ak wala fuel bi ñu indi baaxula ak machine yi Senelec yàqu na ci foofu lañ toll jamono jooju bu ñu xaymaa li nga xam ne doon na am ci coupure tolloon na ci 38 jours maanaam 38 jours de vingt 24 heures ci at mi loolu lañ doon na am ci coupure. coupure yi aussi bu ñu leen doon xayma doon na dem coupure yoo xam ne dina ëpp fukki waxtu. yo xamni nit ki da koy toog du am électricité je pense que lolu luñu ñu dund la ñun ñëpp ñu man ko fàttali président bi mi ñëw limu mu Sénégal am ko ci puissance installée li wax puissance installée li ñu mën togg ci courant ba Sénégal juddoo ba 2012 mi ngi tollon ci à peu près 500 kilowatts manam régime Senghor Abdou Diouf président Abdoulaye Wade li fi def lépp environ 500 mégawatts au lieu de kilowatts 500 mégawatts je crois que bax nañu le ko Nous avons fait le fatali aussi ci jamono joji Nous avons ngeen ñuy wax waxu ay courant situation bi seeni loxo ko contrôler dañu dem mu doon loo xam ni lu lu doon coûter xaalis bu dul jeex Sénégal la te taxul woon ba tey demande bi nga xam ni amoon na fi ci électricité ñu mën ko matal donc loolu bokkoon na ci aussi euh, yi nga xam ni amoon na fi parc bi nga xam ni moo fi nekkoon di togg courant courant ba daanaka lépp ci courant bi ñu doon utiliser mi ngi doon jóge ci pétrole fuel maanaam fuel ci pétrole la moom la ñuy jël togg ko ci ay centrale électrique pour mën a produire courant foofu lañ tolloon ay énergie solaire ak ay énergie bu ñu jëlee ci ndox ak yooyu yëpp ak bu ñu jëlee ci ngelaw li loolu moom Sénégal da ko doon dégg musuñu xam lu mu doon leneen lu ñu mën a fàttali aussi mooy euh, problème yooyu ñu doon am secteur yëpp la doon impacté àggoon na ci ba ndox di ñàkk lu bëree bëree bëri parce que SDE mënatu la mettre en place ay usines am pour mën a produire ndox mu doy donc li nga xam ni ñàkk électricité mën na ko indi ci ci yàq-yàq ci koom-koomu réew bari na torop torop torop ba nga xam ni mooy fléau daanaka bi gën a mag ci ci ci ci ci ab euh, koom-koomu réew bu ñu ko xayma xaymaa noonu euh, Senelec bi nga xam ni moom mooy entreprise bi nga xam ni moo doon togg courant bi di ko jaay situation ban la toll woon bu ñu 100 francs yu amoon ci 70 francs yi 100 euh, francs yu 70 francs yi mi ngi pour dem di jëndi pétrole pour togg courant bu donc 30 francs 30 francs yi ci la war salaire ku xam ratio société ratio wu salaire yi xam ni ci salaire dara ci na ci entreprise yi nga xam ni ay fournisseurs la ñu woon ak yu demee noonu ay su ñu waree liggéey ak Senelec Senelec duutu leen mën a fay même lu ñu jëndee kayit wala lu ñu jëndee big fourniture yi nga xam ne ñi ci bureau yi war nañ ko liggéeyee Senelec mënatu ko woon a am waxumalaak ak nag muy def ay résultats ay ay bénéfices ak yu demee noonu. loolu bokk na ci situation yi nga xam ne moom lañ doon vivre euh, bu ñu jëlee euh, aussi coût bi maanaam. pour Senelec produire ben kilowatt heure ñaata la ci def ci xaalis loolu aussi demoon na ba ëpp dayoo ba nga xamni ni Senelec jaay courant bi prix bi nga xamni ni nit ñi dinañ ko attan loolu moo indi woon prix yi ba àgg fenn fi te du nun woon taxa di mën a def bénéfice conséquence bi ci nekkoon mooy état bi day obligé chaque année mu def lu mat téeméeri milliards ak ñaar fukk ak juróom ci Senelec pour jàppale ko donc loolu mooy situation yi yenn ci situation yi nga xam ni mën nañ koo fàttali bu ñu jëlee li ñu électrification rurale maanaam wàllu village Euh, 2012 Sénégal mi ngi amoon 1460 1440 1648 villages électrifiés maanaam junni ak juróom-benni téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñetti village ci Sénégal ñoo amoon courant maam bi Sénégal juddoo ba 2012 mu mel ni kon ñoom liñ doon def mooy daanaka at mu ne fanweeri village ak ñaar lañ daan jox courant at mu nekk fanweeri village ak ñaar ñoo ci daan yokku diggante 1960 ba 2012. ah moo fi taseeg nag su ma waaju gëj a gis waaw <laughs> gëj a gis gëj koo dégg. Ah, Euh, monsieur le ministre, euh, madame la directrice, euh, mon cher ami DC Morbey, Mandama dama pour Théofi. monsieur le ministre votre générosité je koy souligner vous êtes le symbole de ce que veut le président de la République chez les responsables qu'il a mis en place dans les villes dans les départements dans les régions parce que Yarunga. teey nga xam nga cëru doomu adama te loolu loolu ku fonkul doomu aadama mënoo ko donc président Macky Sall ñi koy teewal jëmm jooju melo jooju jikko yooyu lañu ñu war a am loolu la ñuy nawee ba tax na bu ñu demee di taataan ay kàddu pour moom du ñu sëgg ba tax bu ñu demee di génn suñu kër yi du ñu am mbedd mu ñuy bañ a jaar di ko moytoog yooyu di sëgg di am sens interdit monsieur le ministre kon ñu ngi lay gërëm ci loolu euh, vous êtes généreux parce que foo toog yaa ngi koy wone xam nga ne waxtaan wi tey borom xam-xam yi ci taabal yi rek doyoon nañ ci tënk ko eh, xam nga ni itam waxtaan wi suñu jeunes yi ñi nga xam ñoom lañ tuddee jeune u Bokk Yaakaar yi rek koo ci jëloon waroon na ko mën a tënk yow ci sa bopp dama laa jëlale mais da koy yaatal parce que loolu la président bëgg loolu la président santaane ñu ngi lay gërëm yaa ngi ci loolu euh, wax ji lu muy gudd gudd yépp wala muy yaatu yépp leen rek lay firi li madame la directrice wax li Mor professeur Mor mbay wax ci wàllu énergie ak courant lépp ak synthèse yi mu def moom lépp leen rek lay tënk ndax suñu waa ji jar naa woteel walla jarta woteel loolu rek amut leneen parce que nit ñi léegi dañoo dofatul euh, dofuñu ba tax ñuy yëkkateen seen carte dem ba ci euh, isoloir ba jël xëcc benn carte dugal ci dem du ñu xam sax lu ñu dugal nit ñi defatuñ loolu bu ñuy sol seen daal di dem wote ji dañuy xam ne diw la ñuy woteel waaye diw moomu ñuy woteel itam dafa am lu mu leen ji dafa am lu ñu gis ci moom dafa am lu mu leen defal ci gàttal rek dañuy xool bi fi nguur gee weesu jóge maanaam nguuru Ablaye wàdd ak moom bi mu jëlee nguur gi 2012 ba léegi ngay xool waxuma sax avancé yi li Mor mbay wax rek buñ ci yemoon man sama yaay day woteel ab Macky Sall loolu rek buñ ci yemoon. mais yemu ci lépp loo xam ne nit ñaa ngi koy jëfandikoo ci biir kër yi lépp loo xam ne jigéen ñaa ngi dem ci marché ba di ko jënd pour indi ko dundale ko njaboot gi wàññiku na ci Macky Sall loolu moom lu am la ñun ñi nga xamee ni dañuy xëy dañuy jóge Thiès di dem liggéey Dakar di ñibbisi yëg nañu ne Macky am na njariñ ndax courant euh, euh, carburant wàññeeku na yëg nañ ko chauffeur si itam yëg nañ ko Faut sax dafa dafa non seulement dafa wàññi carburant bi carburant bi mais dafa gàttal yoon yi dañuy toog bureau ba 11 heures ñu def délégation nekk oto diw la ñuy yóbbu julli ji ñu dugg ci benn dem Touba julli ji ñëwaat bureau lu wax neex ci bu litre essence daan jar huit cent tey ji mu ngi jar six cent quatre vingt quinze kuy jënd essence xam nañ wàññeeku na ah sama mbokk njóobeen yi ceeb nu fu mu toll waaw xam nga usmaan ceeb wàññiku na waaw wàññiku na nag ndax da daan jënde saaku ceeb boo xamante ni boo moytul boo amul vingt mille ak lu ca topp doo ko am ceeb ba nga bëgg tey jii ñemeetuñ laa jaay ceeb su vingt mille lu nit ñi yëg la dañu koy sentir ba ci biir néegi usmaan euh, Ousmane mburu mi fu mu toll noo ci mel mii su mburu wàññeeku na Ablaye Wade mu ngi ko doon jaayee fanweer ju teg ñaari dërëm Macky Sall wàññi na ko ba pare <laughs> duma la ma jóob ko sant waaye sëñ bi waaw ah diwlin fu mu dool diwlin lu ngeen ji wax diggante Ablaye Wade ak Macky ah wàññeeku na bu baax ah suukar wàññeeku na de yëg ngeen ko waaw bouteille gaz bi doon jar quatre mille huit cent ca Ablaye Wade nu mu mel man lii ko tax kay borom kër yi dañuy siiñ rek ci dëppi Macky yi <laughs> non wax dëgg yàlla. boroom kër yi yëg nañu ko yëg nañu. ñëwu Macky ndax lépp loo xamante ni Ablaye Wade defoon na ko jëflanteeg moom bi Macky ñëwee wàññi na ci lu bare. kon loolee loolu rek lool rek waxuma li moor wax sànq man waxuma li moor sànq mais ki nga xam da doon jël dépense di ko joxe. la mu daan joxe la mu ci mënaan am. ak la muy joxe léegi la mu ci mën a am moom xam na ne yokk am na kon bu ñu ne ma réew mi demul ahan ñen ñi nak ñom demuñ waaw ñi taxaw gis ne nen ne du nen nonu demuñu c'est clair waay ku gis nen nen a ngi ku gis gor gu ëmb ne a loolu moy wax yi électricité bi moor wax nako ablay wad lam ko don jaay lañ dan fayé suñu facture yi Macky Sall bi mu ñëwé dafa ne wañé na ci ñaar fukki dërëm yu nekk wañé na ci ñenti dërëm waaw dañ koy yegg wal duñ ko yegg rax ci dool dootul couper ci bés bi ci bés bi bu coupé lu mu yàgg yàgg yàgg ñu koy xool en moyenne nee na deux minutes la ca jamonoy waat ci bis bi daan na coupé ñaata dix heures non nee na dégluwu leen ko yéen déglu leen ko non dafa ne moo dafa ne tey jii ci jamonoy Macky Sall courant neewul du coupé de ndax dina coupé mais dafa ne bu coupé en moyenne ci bés bi ñaari minutes lay tollool waaye jamonoy Ablaye Wade bu coupé daan na dem ba fukki waxtu ah. waa et puis yenn saa yi daan na dem ba sax waaw kon xam ngeen ne bu ñu nee ndax Macky jar naa woteel dañu naan waaw dañu koy woteel duñ ci yem nag dañ ci xar suñu tubéy lu mu jaral ñeneen ñi rek jaral nañu jaralu ko ëpp ndax Macky moom moo jig Sénégal xam nga nguur suñu borom da koy yat ba mu normal mu xool ci doomu aadama yi ne ca ñuy jël war a jël nguur ga mu xool ca ka mu tollool la mu yatt mu jox la ko Macky Sall ba muy nekk directeur Petrosen ba mu fay jóge ñu koy def ministre de l'énergie kenn ci ñun xamut woon ne wala yaakaarul woon ne donte xam na ko yaakaarul woon ne ci Macky Sall dinañ fi exploiter pétrole dañ fi exploité gaz te sunu borom waajal na ko démb ñoom dof yi ñu nekk ci rek lu mu yëkkati ñu ne déedéet yóbbu ko assemblée nationale lu mu yëkkati ñu déedéet dàq ko fa. waaye génn baa baaxoon ci ñun ba mu génnee ba suñu borom jox ko mandat mu daw genn wàllu mandat mu ne ko balaa ngay jël beneen bi dinaa la won pétrole bi nag fa ngay jaar pour jox ko Sénégal pétrole baa ngi nii coow li bëri na foofu lu ñuy yemalee sunu kàddu